Cheikh di Mokhtar Mbacke di ñaan suñu borom yàggal ko fi di nuyu képp koo xam ne ñu ngi teewlu jamono ji euh, seen site internet cheikhibrafall.com ki ci ànd ak yéen sax alxamis di soxna Mame Bousso Touhfatou tey ji ma am gan gu tedd ñu koy wax al oustaz Serigne Saliou fii ci diwaan bu soobe ñu dala ko ci jotaayu soxna yi mu fas ñoo indil ay thème bu am solo def ko ci mm, lépp loo xam ne aju na ci warte fi jigéen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 ginnaaw bu ñu leen nuyoo kenn ku nekk ci aw turam ak santam di leen siyaare di leen balaq te di leen balaq di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal di siyaare bu baax mbokki julit yépp ak fu ñu nekk ci alamul islam di ci jiital kilifa yi diine yi di jël nuyoo bu ak siyaare yi yépp di ko teg ci loxol Cheikh Sidil Muxtaar mu jotal na ko ci mboolem islam ndax moom moom dañ koy tudde kilifa goo xam ni kilifa jàmm la ndax jàmm lay woote bennoo lay woote euh, lépp luy yóbbu lislaam ca kanam moom lay woote su ko defee kon soxna si ñu ngi lay delloo nuyoo di la sant ci dalal gi di nuyu mbokk yi nga xam ni ñoo teewe jataay bi euh, ànd nañu suñu nattangoo di suñu xarit Oustaz Abdoulaye Faye di kenn ci ñun euh, su ko defee kon dénkaane yi nga xam ni Serigne tubaa indi na ko jëmale ko ci jigéen te mu dénkoon ko soxna soo xam ni mën nañ ni waajuram la ndax waajur la ci waajur la ci moom ndax soxna la soo xam ne soxna baayam bu ndaw la woon muy soxna Penda Diop nekkoon soxnas suñ mbàkke kajoor di waajur ci sëriñ bi liñ ciy jëkk a dégg rek mooy li ñuy tudde complexe ab jullit waru koo am ab jullit fu mu toll war nay dox ci watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabri waaye war nay dox ci itam euh, xolil xaq walaw kaana ala nafsika aw walaw kaana murran su ko defee kon gis nañu ni su fekkoon ni donte waajuram la mm, war na di ko wax dëgg donte sa waajur la war nga di ko wax dëgg ginnaaw yàlla moom moo teg dëgg yemale ci ñépp waxin wa nag doo ko ko wax waxin woo xam ni wu safaanook ab yar la waaye mën nga ko wan dëgg te du jaar ci mu di la ca mere ndax na nga ko koy waxe bu defee kon laabiire gi nga koy laabiire ngir jëmmi borom bi subhanahu wa taala ak jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne li nga koy wax yàlla rek kay tax su ko defee kon sëriñ bi mi ngi jëkkoon dénk soxna si li nga xam ne mooy muñ te gis nañ ni muñ marta bala mu am solo ndax alquran nee na inna allaha ma sabirina yàlla ngi ànd ak muñkat yi su ko defee kon ñu xam ni itam al mutasawa li ñuy tuddee égalité ni ci ni ko islam waxe ak li ci islam jublu day mel ne dafa wuute léegi ak jamono ji ni ñu ko dégge ndax alquran moo indiwoon woon égalité bu yàgg ca ba mu ne innal muslimina wal muslimaat ba aaya ba jeex ko defee kon yamale góor ak jigéen góor fi muy yem jigéen fi muy yem ak góor mooy li leen yàlla sant lépp ci ay santaane e, ñoo ca bokk yam waaye lim leen tere yépp ci ay tere itam ñoo ca bokk yam yàlla sant góor doon góorug julit moom la sant jigéeni julit lu mu tere góorug julit moom la tere jigéeni julit kon égalité bi nga xamni ne barki de moo la fi ñew alxuraan daqon nako ba mané ne arrijaalu qawaamun ala nisa góor ñi ñoy way taxawé jigen ñi kon duñu mëna yem ci lola sëriñ bi nak wax soxna si ko alayki bis sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa lak. laki fa su ko mu maa ngi lay dénk muñ ndax gis nañ ni muñ ci lépp boo demee ci masaalik sëñ bi distribué na muñ asabro fii ak asabro an nga xam ni fi niama ak an anil maasiya xéewale yàlla yi lu mu neex neex neex wala alali àdduna ji lu mu neex neex wala paluk àdduna lu mu neex neex ndomb ak tànk guñ lay takkal garaat mooy garaat garaat bu ñu lay takkal wala alal juñ lay jox lu mu neex neex bu daganut walla lewut walla àndut ak ndigalal yàlla àndut ak digle yàlla nanga ko lu mu neex neex nanga ko muñ waaye li yàlla santaane lu mu metti metti ak lu mu ànd ànd ak coona nanga nga muñ coona ya ba jànkonte na nga jànkonte coona ya ba ba ba ba def ndigal yàlla yooyu waaye mu tegal ko ci ragal yàlla ragal yàlla ci kaw ak ci biti wala ci ci ci kaw ak ci biir ci biti lii feeñ ak lii nëbbu sa jëmm ji li ñuy gis ci kaw na ci ragal yàlla gu mat sëkk am waaye sa biir it mooy sa xol itam na ragal yàlla ragal yàlla gu mat sëkk te mooy ngay bàyyi xel sa boroom foo toll itaqoo allaha ay sukuntum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la fu ngeen mën a toll na ngeen di bàyyi xel borom bi tabarak wa la wax ne yàlla duñ ko ragal waaye dañ koy wattandiku ndax nee na yaa ayyuha lazina amanu xu anfusakum wa aleykum naar yéen ñi gëm wattu leen sawara te wattul ko seen bopp sub taal wala nga teg sa fourne ni ngay fexee ba wattandiku ba doo ca lakk noonu ngay fexeende wattandiku loo xale bi ba bu mu ca lakk kon yow ni ngay fexee ba doo tàbbi ci tere yàlla yi noonu ngay fexee ba njaboot gi itam bu ñu tàbbi ci tere yàlla yi bu ko defee mu ne ko bi ci topp mooy nanga sax ci tuub na sax ci tuub te it bul jeng mukk jëm ci loo xam ni du ak njub duumi ala tawbati bi ijtihaad bi ijtihaad wala tamili siwa rashad nee na kon na ngay tuub ndax tuub kat ab jaam saa su nekk dafa war di tuubal borom bi tabaraka wa taala di delloo boppam ci subhanahu wa taala ndax ah, ah, su ko defee dañuy wax ni sarti tuub mooy nga rëccu li nga weesu woon te yéene li des ak dund ni dootoo ko dootoo ko def mel ni dangaa juum xamoon da nga juumoon xam ne lii du nii waaye ba ko xamee da ko daal di bàyyi waaye bul jeng mukk bu la kenn mën a jengloo itam nga jëm ci lu ak njub waaye duumu duumi alal xumuuli wa tasatturi wal taxfi wal taxfidi sawtiki dëhëran tashkuri nee na ko ba tey na nga sax ci di suufe di suufe suufeel sa kàddu rawatina jigéen warte wax ci kaw ndax bu jigéen waroon a wax ci kaw julli gi nga xam ne farata la ñu war ko jàng ca kaw kon lislaam du ko may mu di ko jàng suuf ndax julli timis wala julli da nga ko war a yolu te jigéen da da ko war a biral te jigéen bu ko yoloo may nañ ko ko kon jigéen segam boo nekkee ci ndigalal yàlla lañ lay wax nga suufeel sa kaddu rawatina boo nekkee ci àdduna kon kaddu jigéen warta jeg am na sax ñuy wax ni baatu jigéen a la gaa yi am nañ ci munaaxasha su ko defee di suufeel sa bopp itam nag gàtt tànk gàtt aw làmmiñ yam ci sa ndigalal borom kër lu yàgg-yàgg laa tansuri ma daamati xayyata ila gayri lasi taxillahu taxliluhu xadin jala nee na ko lu yàgg-yàgg itam bu àdduna neex mukk ba nga xool kudu sa borom kër góor lu mu bari bari alal lu mu rafet rafet kër bu fekkee du sa borom kër bu la àdduna jëy mukk ba nga dem ca moom di jàng moom su ko defee kon loolu itam di lu mat a bàyyi xel ci li nga xam ne warteefu jigéen la ci ni mu war a suufeele boppam ak ni mu war a suturaale boppam ak ni mu war a nëbbe boppam waaye ni mu war a yemee itam ci borom këram bi nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala booleel mu ne ko wajtani bi alxiibata wa takabbura wa asbiti sukuta wa tasabbura ba tey nee na ko na nga wattandiku jëw di loo xam ne léegi lu tasaaroo ci jamono la lu bari nit ñi sax jàppeetuñu ko bàkkaar balaa waxtaana mën a neex dañ caa dugal ne ci dereb jàmbur rekk di ŋuñtu ŋuñtu waaye rëy rëy nag euh, rëy ci sa borom kër jigéen day woyof ci ron borom këram rawatina wàcc euh, woyof toy ci yàlla waaye woyof toy itam ci borom këram waaye saxoo noppi ci lu yoonam nekkut Sëriñ Tuubaa wax na feneen ni euh, law kaana al kalaamu fiddatan la kaana sukuutu saaban sëriñ bi nee bu fekkoon ni wax waloore na ba toll ni euh, xaalisu ngalam kon noppi dina wëlloore ba toll ni wurusu ngalam su ko defee mu ni mu dellu si siwaat baatum muñ nga xam ni kon baatum muñ ñëw na ci biir jataay bi walla ci dénkaane bi ñaari yoon muñ ba jaamu yàlla ak lu mu ànd ak coono muñ bànneexu adduna donte maanaam du su fekkee ni du lu yàlla gërëm moo xam alal la moo xam lu mën a doon waaye muñ itam muñal sa borom kër ci lépp loo xam ne yàlla dogal na mu waroon ko am te amu ko nga bañ koo xool ci ñeneen ñi waaye muñ naqar yi nga xam ni moo nekk ci biir néegub sëy ci sa borom kër bi yàlla booleel ndax ku muñul rekk léegi nga gis genn fii rek gis ku ëppale sa waaye nga daal di ciy bëgg a jéng jëm ca te kon lam ko waxoon ne ko Euh, bul xool ku dut ki yàlla booleel mu dagan ci yow kon da koy daal di bëgg bàyyi mu ni teg na ci ni ko wajtani bi alkasiba wa riya wal ujba wa sumata wal baxda ba tey ci dénkaane bi sëriñ bi wax na soxna si ni ko na nga wattandi ko wax amut mel ni léegi jamonoy léegi ji euh, am na ñoo xam balaa seen waxtaan a neex rek dañuy wax loo xam ni amut waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na màndargay naafiq ni ñett la bi ci jëkk mooy bu nit ki waxtaanee topp waxtaan wu neexu ba wax lu amut ba ca topp mooy suñ ko dénk suñ ko woloo ba dénk ko mu war ba ca topp mooy bu joxee alwaadu mooy rendez-vous daal di koy fóosate waaye njëstal itam di def loo xam ni kenn tax nga di ko def wala lenn tax nga di ko def waaye jullit bi lu muy def na ko def ngir jëmmi borom bi tabaraka wa taala waaye soxna si itam lu muy defal borom këram na ko def ngir jëmmi borom bi subhanahu wa taala waaw kay kon ñu ngi toll woon ci fi mu ko doon wattandiko loo waxul amut ak njistal kon nit ki war nay sàmm kàddoom lu waxtaan neex-neex ak lu njëriñ feeñ-feeñ buñ la tax wax lu amut waaye looy defe nang ko def ngir jëmi borom bi tabaraka wa taala xataa sa borom kër sax li nga koy defal yow soxna si nang ko def ngir jëmmi yàlla ndax borom kër doomu aadama la ta ñaare doomu aadama moom boo koy defal bu yàggee rek nga gis ci moom lu tax nga tayel ndax fi borom kër lek léeg soxna da koy defal loo xam ne léeg-léeg day jikk ba yàgg nattu ko mel ni ku ku ku gërëmul lam ko lam ko defal wala yu demee noonu waaye bu fekkee yow ngir yàlla rek tax ngay def moom moom ngërëmal yàlla ngay sàkku waaye naw naw jëf itam warut kenn waaye warut jigéen itam ndax jëf moom ku ko naw rek daal di koy yàqule rawatina jigéen waaye di def ngir bëgg ku la gis wala ngay wax ngir bëgg ku la dégg wala ngay sàkk ak mbañeel di wut koy bëgg koy bañ yooyu yëpp maanaam da nga war a bëgg sa borom kër waaye bëggaale itam ay bokkam yëpp mu ni ko itam nga sax ci dëggu dëggu ci jëf ay dëggu ci wax ak de sellal say jëf te sellal say jëf kat moy nga di def ngir yalla waye ngay laa bi rek jëpp jigen joo gis mu wacc wartefam wa nga xamne ne nako na ak borom kërëm nga bi rek ko ngir jëmmi yalla ba mu wat jox borom kërëm gëddam kam ko wara jox mu ne ko loolu de boko defé tasfari bil da nga tofu ci ak jagle moy di nga am xewal yo xamne dal daal dañ nan ki eh, numu mu mu ni ko nag wala tarumi taatallahi bila taati sawjik attaqi sil ula nee na ko nag bul jéem a sàkku ak topp yàlla ci lu topp sa borom kër maanaam bu la wóoree ni toppoo sa borom kër boo toppee yàlla itam topp yàlla ga mën na am du du du nangu kon ndax e, borom kër boo xam ne bu ragal yàlla la di topp yàlla sant la nga topp yàlla nga topp ay ndigalam ndax ndigalam mooy ndigal yàlla su boobaa borom kër boobee kat borom kër bu mat topp la mu ni ko ndax wal taalami anna jihaada niswati fi taatil aswaaj aswaaji duna mériyati Sëriñ Tuubaa nee na jihaati jigéen mi ngi ci topp borom këram xare badar wala yenn ci xasa benn ci xasawaat yi badar lañ ko gën a jiñ am na jigéen ñi def délégation ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ah góor ña dee nga badar di fa xeex waaye nag ñun amuñu dooley yor ay ngànnaay dem ca toolu xare ba di xare te it tuyaa ba ja nga xam ne ñoom am nañ ko ñun dey bëgg nañ tuyaa ba joojee léegi nag yan yoon la ñu mën a jaar ba am tuyaa ba jooju su fekkee ni amuñu kartan ga wala doole ja mu ne ko jigéen daal su bëggee am yoolub jihad, na topp borom këram képp ku topp sa borom kër a topp nga yàlla te yàlla dana la fay yoolub jihaad mu ne wa aysuma sawjun radi an sawjatihi radiya anha rabbuha bi ni'matihi neena na jëpp jigéen joo xam ne na ndigalal borom këram na ko wóor ne topp na yàlla te it yàlla dana ko gërëm bu ëllëgee fay ko ca xéewalam yi nga xam du jeex أما إذا لم يرضى عنها أبدا فير فليس يرضى الله عنها سرمدا waaye nag képp koo xam ni jëpp jigéen joo xam ni dabuwun ngërëmal borom këram na ko woon ni du mën a am ngërëmal yàlla mu ne ko wal taalami bi anna kulla ma sadar li xayri wacci lii li xayri wacci sil jalaali fadar fa hadar Sëriñ Tuubaa jeexale dénkaane bi ni ko nag na nga xam ni yow soxna si waaye jigéenu jullit jëpp na xam ne lépp looy def te defoo ko ngir jëmmi yàlla loolee neen na kon looy defal sa boroom kër looy defal say dëkkandoo looy defal say doom looy defal say sa bokki boroom kër na doon ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala soo ko defut la nga def day neen kon day mel ni dénkaane bi nga xam ni moom la sëriñ bi dénkoon soxna si foofu la dénkaane bi yem ñu mën cee jàngel lu baree baree baree bari nag ndax denk na ko soxna soosu waaye denk na ko képp kuy jigéen rawatina jigéen ni jullit su ko defee kon a mu ni ko kon nag lima ma la ci fi ma la koy tënkale daal mooy li ma la mujj wax fa ma tàmbalee wax ak li tënk jataay bi mooy looy def na ko def ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala ndax bari na jigéen ñoo xam bu seen borom bu seen borom kër yoree alal rek lu ñu bëgg ñu def waaye boo xëyee bis dépasse manqué loo santaane ñu bañ kon day mel ni ngir intérêt moo taxawoon waaye ngir yàlla taxut te jigéen lu muy def da ko war a def ngir yàlla même boo xëyee tey benn dépasse manqué sax war ngaa jaayante yow ci sa bopp xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni nafaqatu rajuli ala ahli sadaqa dépasse bi borom kër di jox jox joxe ci këram sarax la kon yow soxna si war na ci yow saa boo xëyee benn bis boo xam ne yàlla dogal na tey kat dépasse bi manqué na wala kii na wala ñàkk na nga fexe jaayante ngir jox dépasse boobu say doom xam ne defaloo ko sa borom kër say doom nga ko defal ndax borom kër bari na borom kër yuy joxe dépasse te duñ ca lekk waaw kon nga xam ne kon say doom nga koy defal kon euh, soxna si fa mel ni foofu daal xam naa ne dañ fiy tënk li des ci jataay jërëjëf al oustaz Saliou Ndiaye kàddu yi leer na am na solo xam naa ni euh, am nañ ci jàngat bu baax a baax ndax suñu mbokk jigéen ñi ñu dégloo li nga wax mooy comme sëriñ bi lim dénkoon euh, way juróom boobu di soxna Penda Diop mu am solo lool nga xam ne dénk na ko li nga xam ne mooy muñ te liñ naan nit mënta jaamu suñu borom ndaree dafa mën a muñ ndax ku nekk xam ne ni àdduna yaatu na dund gi yàgg na te lu bëri euh, bu àndut ak muñ rek du mën a sotti ndax jaamu yàlla moom bu ànd ak neex-neex ku nekk xam ne ni mënta ànd bi ci topp mooy lu mel ni euh, ragal yàlla kon dafa mel ni sëñ bi mi ngi ko doon dénk soxna soosu ñu xam ne kon ragal yàlla ni góor waree ragal yàlla di topp suñu borom dëgmal yàlla di ko jaamu di liggéeyal borom moom mi nga xam moo ko fi indi kon loolu dafa mel ni nekkul góor rek la war ni mu waree góor noonu la waree jigéen mu mel ni nga ñëwaat ci lu am am solo muy li mu ko wax ni ko nay sax nay saxoo noppi ndax comme sëriñ Tuubaa da koy jàngale lu bari bari radiyallahu anhu ndax noppi kuy kuy noppi ku nekk doo jum wala boo ku say wax bariwul doo wax loo xam ni uh, warut ndax ku nekk xam ne ne wax ju bari moom te amul amul njariñ moom maanaam bokkul ci ay teggin ndax wax ju gàtt uh, xayru kalaam maa xalla wa dalla manam wax mom bi gattata am solo rek mo upp wax ji wax ji beuri ji nga xamne amul ben sens bi ci top moy comme li nga wax muy top borom kër sëñ bi da koy bamtu lu bare bare ndax li nan al maratu iza salat khamsaha wa sama saraha wa ahsana al farjaha wa ataa zawjaha falta doxul jana bi ay abwab saat jigen mom bu fekke top na borom keuram julli mu fekk mu fonko ay waxtu juromam mu wor weru koram dali Euh, téye boppam nga euh, maanaam fàgg maanaam mu fàgg mu téye boppam ci bañ a mooy daal di dégg lépp lu ko borom këram digal te nga xam ne neex na suñu borom mu topp ko kooku ñu ne su faatoo dañ koy dugal ajana ci loo xam ne amul benn sikki saaka dañ koy jox ay caabeem rek foo ko neex mu dugg fa kon muñ gi ak topp borom kër gi comme ni ko sëñ bi digle lu am am solo la naka noonu lu mel ni jëw moom faatu rek nga tiim ko di ko lekk kon euh, mi ngi mel ni jëw moom lu lu lu bëri la suñu rawatina suñu jamono ji nga xam ne jigéen ñi bala ñoo mën a wax lu seen yoon nekkul wala ñu jëw dañoo toog ci nabu añukaay yi du ñu añ fu la jug fa waaye dañ naan diw mii di di wax lu seen yoon nekkul ak di jëw te dafa bokk ci mandarga yi jullit yi nga xam dañ li nga xam bokk ci mandarga yi tere ab diir muy ab jaww salaay san baan na ko tere kon nañ ko watandiku bu baax a baax lëkkit bi ci topp mooy lu mel ni wax lu amut ndax ku nekk xam ne ne Abubakar Sadiq dëgg gum dëggoon daan dëgg lépp lu yéen bi salaay salaam musaana indi rek mu gëm ko demoon na ba mu am garaat boobu ñuy koy wax as kon jàmm bi ni muy ni muy mënee wax dëgg di dëggal ba ba ba ñu ba ñu seere ko fa suñu borom ni kii kat kuy dëggal la waxatu dëgg la nit noonu lay noonu lay di wax loo xam ne du dëgg di wor di wor di wax loo xam ne du dëgg di wax loo xam ne amut bañ tuddee ko kazab foofu la kon yàlla nañ ci yàlla musal kon oustaz indi nga ay tomb yoo xam ne yu ama ama solo ndax bu buñ nee jigéen rek dañoo war a xam ñun ñooy kan xam tamit lan lañu suñu borom digal xam tamit alxuraan dem ñee la la wàccee ci ñun mooy sàmm gi ñu war sàmm wante ci ci ci ci diine digle ak war a xam tamit diine li mu tere ndax euh, sàkku xam-xam ni mu waree góor noonu waree jigéen dañoo war a xam suñu diine xam li suñu borom tere li mu daganal li mu xaraamal ci ñun li nga xam ne tey buñ ko defee am ci bànneex am ci bànneex mën nañ ci am bànneex mën nañ ci am tamit euh, euh, ndigalu maanaam ngërëm la suñu borom waaye di watandi ko tamit lépp loo xam ne suñ ko defee xëy na mën nañu indil alkande te tamit duñ ci am benn yàlla kon euh, oustaz ñu ngi lay sant bu baax a baax di am ndekki ak contentement ci dalal gi ne dalal nga ñëw waxtaan ne waxtaan bu ama ama solo xam na li li li duuf ci nag bi xayu ci cin li ndax buñ ko doon wax duñ fi jógee waaye ñu ngi euh, sant képp koo xam ne rek yaa ngi teewlu site internet bi di cheikhibrafall.com ki ci ànd ak yéen di seen doom seen xarit euh, seen soppe di soxna Mame Bousso soto Fatou ci alxamis bu nekk kon xam naa dama leen di jox dig daje ba beneen émission rek kon di leen wax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin